jërëjëf mbokk mi ala kulli xaal te ñu fas yéene dikk leeral gént di foon nit waylaa nga gént nit di la foon ndax bari na lu muy gaar doomu aadama yi waa gént foon nag moom lu ci ëpp nag lu baax lay doon mbokk mi nga xam ne nag daa gént di foon loxoy ku faatu lool it mën nay tegtale ci moom lu baax lu muy defal kooku wa ilaa ak dox mbokk goo xam ne kooku bàyyi nag ko mu koy def wa ilaa kooku am lum ko diggal loo xam ne mu ngi ciy góorgóorlu loolu danay faral def ngay gént di foon loxoy ku faatu bu dee koo xam nag day am tasxiir wala am tur yàlla yu muy liggéey ala kulli xaal mu gént am lu ko foon loolu it mën nay tegtele ak nangu goo xam ne tur yàlla miy liggéey nangu na ko kon mbokk yi nga xam ne allah allahu bi dañuy laaj numéro bi nañ dugg ci compte bi fu ngeen basee bu am appel noonu rek incha allahu bi di ngeen jot numéro bi automatiquement ngeen woote wala ngeen envoyé vocal wax seen ay gént luñ ci xam ñu tontu leen ci ci kàttu na sun borom insha allahu rabbi eh, numéro yi nag bu leen neexee mën ngeen ko jël 78 443 75 27 kon ñi nga xam ne gént rek lañ soxla aaja wut ñi woote nañ ma envoyé vocal wax seen gént te ku envoyé vocal bonk ba pare na nga tok déglu sun amé jot nañ la tonto ñi nga xam dañu envoyé vocal ba nopi top di woote wat nañ tonto goma nañ bayyi xel ni ñun dañu am yitte yi nekk tamit inshallah ñu ngi ñaan mbokk yépp ndax ñu koy faré di waxé liggéey bi ñun ñëpp ñoko bok su baaxé ñun ñëpp la baaxal kon ñi mëna a moy ñi sét wala li listixaar wala ñu am mbokk mo xamné da dem ta xamuñ ci lu nekk wala ñi nga xamné ne dañoo tawat jafé jafé walum hémorroïde wala ndoxum siti wala xeet yi mel noonu wala jigéen ñi am jafe ci wàllum sëy wala góor ñooñ bu leen neexee mën nañoo jël numéro bi 78 443 75 27 alaa kulli xaal ba tey mbokk mi nga xam ne daa génte ñu koy fóon bu dee koy fóon nag lu baax la loolu it mën nay nekk jàmm ju dox diggante moom ak ki koy fóon wa ila digënté bo xamné ratax lool wala jafe-jafe yo xamné ne bu amoon seen diggante mën nay deñ batay mi nga xamné da gënt di fóon ab loxom loolu it lu bax la man nay nek lu mi yakar di ci jot lo xamné ne bu ñëwé yalla man na dogal mu yari ñoko ba gént di foon mën nay tekki gént di foon nit mën nay nekk cofeel waaye ba tey mën nay nekk yërmande wala ndigal yoo xam ne yaa ngi koy topp ci ki nga xam ne mu ngi lay foon ala kulli xaalin mbokk mi nga xam ne day tasxiir tasxiir buñ ko waxee wala am lu muy xool tasxiir nag mooy nopp benn doomu aadama bam topp la wala ay nit su fekkee yaa ngi liggéey loolu gént am lu la foon mënees na lay xamal ne loolu yàlla dogal na sotti na ba tey gént di foon nit loolit mën nay tegtale xabaar boo xam ne mën nga koy jot kon loolu lu am solo la ci gént gént di foon aaja ju faju ba ba tey mën na koy doon gént di foon nit ba tey man mën nay doon aaja ju faju ba tey man nay doon mbir yoo xam ne mën nay xew sa diggante ak ki ngay foon incha allah rabbi am na ci ñoo xam ne niñ ko waxee woon seeni gént nañ ko génte noonu lay amee ku génn di ñu woola nga xëy ñu woola loolu dañ lay wan kon mbokk yi nañ ciy bàyyi xel baax baax ndax gént daa bokk ci dunduk doomu aadama yi am na ci ñoo xam dañ leen ci wan am na ci ñoo xam dañ leen di taawil incha allah pour gént gi mën a leer seen bopp jërëjëf